لو ملتي ميديا مولين دي ميسين اميسيون السلف مع القران bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu dellu si waat ci jotaayu alquraanul karim asalafu ma alquraan mag ñi ak alquraanul karim nañu ngoye woon ci téere bii di ko jàng di ko jàngale te di ko jëfe te di ca barkeellu ba ñoom ñu daal di texe yal na yàlla boole nu ak ñoom ca aljanna yu kawiya Euh, ngeen koy amee fii ci seen kër muy këru képp koo xamante ne sopp nga alquranul karim muy la maison du coran au Sénégal nga xam ne ñooñu alquranul karim ci réew mi gépp ak bitim réew ñoom ñoo ci waaye ñu ci ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu ci gunge ña ca jiitu nekk loo multimédia nekk fële ca Sandaga di jaay lépp lu jëm ci matériel électronique yi euh, ñëpp xamee leen ci jaayum qualité waaye ba pare ay donga daara lañu ay soppee alquran lañu kon bépp bu ci waay bëgg lu ci bëgg rek mën na woote ci seen i numéro dem fale ca Sandaga daal di jëflante ak ñoom soo jëflante ak ñoom xamal ne yaa ngi jëflante ak ñooñu alquranu karim waaye gunge li nga xamante ne moom mooy jotaay bi nga xamante ne képp ko alquranu karim ñor di nga mën a toog fu la neex ci àdduna bi ànd ceeg ñun di xool histoire li nga xamante ne moom mooy téere bii di alquranul karim euh, euh, tey nag ñu euh, fas yéene waxtaane tomb bu am solo mooy a asifatu lati kutiba alayha alquranul karim fi ahdi nabi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ leen euh, yonti alquran bind nañ ko ci jamono yonti bi sallallahu alayhi wa sallam limal leen ñenn ca ña ko doon bind waaye ak jumtukaay yi nga xamante ne moom moo yemboon ca jamono jooja ñu doon ci bind li nga xamante ne moom moo di alquranul karim kon bindum alquranul karim ci jamono yonti bi sallallahu alayhi wa sallam balaa ñuy ñëw ci jamono abi dañ leen di wax yan ñooy melokaan yi nga xamante ne mën nañ koo tënk ba nit ki nga xam ne moom mooy topp jotaay bi daal di koy jàpp xam ne bindum alquran ci jamono yonti bi sallallahu alayhi wa sallam yii de mën nañ ko caalim danañ ca lim ñent bi ci jitu moy ku nek rek mu leer ci sa bopine yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam balaa muy faatu bala muy génni aduna manam génnul aduna mukk lu dul ne alquran gep bindon nañ ko maanaam bi yaronte bi di génni aduna fek na alquran min fatiha ila nas manam lako ko dooree suratul fatiha ba suratul nas fek na lépp lépp ñu daal di koy bind ndax amon na ay bindkat yoo xamante ne ñoom bindum alquran mom mo nekkon seenu liggey lépp lu wàcc ñu daal di koy bind kon na leer ci bopp ñëpp ne balaa yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam di génne àdduna fekk na alquran gépp ñu daal di koy bind ba ñu mën cee jot ñaareel bi ci melokaan yi nga xamante ne <clears throat> mën nañ koo tënk ci bindum alquranul karim ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa moo di ne bindoon nañ ko de waaye bind boobee kaana amman maanaam nekkul woon loo xamante ne dañ koo bind ci benn téere waaw nekkul woon lu nu bind ci benn téere ndax yonte bi sallallahu alayhi wa sallam daanul euh, jëlul woon ay fooy rek yu mu dajale ne saxaaba yi bind leen ko ci jëmmi téere bii moo tax alquran nekkul woon ci benn kaye nekkul woon ci benn téere moom daf leen daan wax ne bind leen kuy ñëw rek la nga xamante ne moom moo disponible maanaam la la gën a yomb te yemb ci yow nga daan di ŋàbb lool moo tax ma leen léeg-léeg nga gis saxaaba bu war a xëy si mu andi ay fooyam pour bindi ci ki andi ay deram pour bindi ci ki andi ay tissu bindi ci ki daal di dem daal di faxas bànkaasu tandarma andi pour bindi ci ki daal di dem wuti li nga xamne ap yah parce que mom la am tay pour bind ci ki daal di dem daal di buddi ap xeer yenu ko ñew tek ko pour fasiyene ci allahu akbar radiyallahu anhi sahabati ajmain yalla yalla yàlla euh, saxal gërmaa dem ci ñi nga xamante ñom ñoy sahaba yi motax lolé motax alquran nekkut woon lu dajale ci benn bërepp nekkul won luñu dajalé dajale ci benn bërepp wala euh, manam comme benn bibliothèque waaye nekkut woon lu ñu bind ci benn kaamil moo tax zeyd ibnu thaabit mu nekk xadis bu leer moo xoon ne qubida annabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa lam yakun alquranu qad jumia fi shay yaakaar na leer na zeyd ibnu thaabit nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faatu na te bi muy faatu fekkul alquran mu nekkul lu ñu dajale ci benn téere kon ñaareel bi moom mooy que ne bindoon nañ ko waaye dañ ko bindoon ci ay juntukaay yu bokkut waaye ay juntukaay yoo xamante ne benn bokkul ak sa morom moo tax dajalewuñ koon ci benn téere te dajalewuñ koon ci benn bërëb euh, ñetteel bi ci melokaan yi nga xamante ne dinañ ko lim mu bokk ci yi nga xam ne dañ koy xàmmee mu koy wasfoo bindum alquranul karim ci jamono bi sallallahu alayhi wa sallam moo di ne bindum alquran de dafa mate ci ay juntukaay yu bokkut waaw xam nga fële dañoo ne digle bi dafa digle woon lu waaye am rek bindee ko waaye fii alquran dañ ko bindoon ala adawatin mutanawia wa geyr mutajanisa dañ ko bindoon ci ay juntukaay yoo xamante ne yu yu yu yu fasal nikoo la maanaam yu bari waaye benn bokk ci ak sa morom cosaan waa benn jegewu ca sax ak sa morom cosaan moo tax alquranul karim nekkut woon lu ñu dajale ci diggante ñaari eh, ñaari couverture maanaam nekkuloon ci ay fooy yoo xamante ne ñaari couverture mom moko moko sekk comme niñ koy gisé ci kamil waye ak niñ koy gisé ci sunu sunu téré tay ñentel bi ci melo yi nga xamantene bindum alquranul karim dañ ko koy wasfo ci jamono yonte bi sallallahu alayhi wa sallam moo di ne jamono joju manam alquran biñ ko bindé nekkul won murattaba suwar wal ayat manam sar yi toftalo wut won comme ni mu toftalo waye laaya yi toftalo wut won comme ni mu toftalo kon yakarna bobu leer na mooy bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di génne àdduna fekk na alquran gépp de bind nan ko waaye saar yi toftaloo wutu woon comme nii mu mel masalan ni ngay ne xam nga da soo ubbee faatiha ngay njëkk jot teg ca bakkara teg ci imran teg ci nisa teg ci maida di wàcc bi yonent bi génne àdduna nag mbir mi demeewul woon noonu parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que alquran na mu wàccee la loolu dinañ ko ñëw andi ko ci jotaa yi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw ndax alquran bi muy doon wàccee wàcceewut woon comme na mu nekkee ca lawxul mahfuuz muy alluwa yàlla bi nga xamante ne moom moo nekk ca asamaan dinañ ñëw ci jotaay boo xam ne dañuy leeral lan mooy al lawxul ak nan la mel ak nan la toll yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci ay xadis comme xadisu ibnu abbas ak xadisu anas anas ibnu malik kon na nga xam ne noonu la alquran nekkee woon ca lawxul mahfuuz mooy nii mu mel nii tey ji ci kaamil gi waaye nii mu mel ci kaamil gi alquran wàccee wut woon noonu da doon wàcc selon li nga xamante lépp luy xew aaya ya koy régler jibril daal di dem andi ko loolu dinañ ñëw ci kanam am na bunt boo xamante ne dañ ciy jàngale lan moo taxoon alquranul karim euh, nekkutu woon lu ñu bind dajale ko ci benn kaamil ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu foofee lañ koy leerale kon tey jii yii mooy ñeent yi nga xamante ne ku nekk war na koo xam ne bi bi génne àdduna alquran bindoon nañ ko lépp waaye nekkut woon lu ñu bind ci benn place wala dajale ko ci benn téere ñaareel ba nekk ñetteel bi nekkul woon maanaam alquran dañ ko bind ci ay jumtukaay yoo xam ne benn bokkul ak sa morom ñeenteelu tomb bi ñu xam ne alquranul karim bi yont bi faatu bindoon nañ ko waaye nekkul woon loo xamante saar yi toppaloo na organiser nañ ko ba jiitu war caa topp wala laay yi comme nii mu mel noonu la meloon kon loolu moom moo nekkoon suñu jotaayu asalafu ma alquran tey ma kaana min sawabin fa min arrahmani wa ma kaana min xatain fa min nuqsaan salla al ilahu ala nabi wa alihi ma labba mu labbin aw tahalala muhrimu wa rahmatullahi wa barakatuh l'eau multimédia est spécialisée dans la vente et la prestation de services en proposant une large gamme de matériels informatiques, bureautiques, électroniques, réseaux, divers accessoires et services liés aux TIC, technologies de l'information et de la communication. Avec 11 ans d'expérience, la société L'eau Multimédia est composée d'une vingtaine d'employés et participe au développement du pays et à la création d'emplois l'eau multimédia. Nous sommes au 27 avenue Émile Badian, angle Paul Hall Dakar, Sandaga, Lalouourous. Téléphone 823 81 87 ou 77 998 04 04. Service commercial 77 306 44 83 ou 76 637 45 45. L'eau multimédia moi de di may seen émission assalafou Qur'an